activiste dem nañ ci xalif dem nañ ci fu ne dem nañ koy wax en état bi xalif muy def nañ ci kër yoo xam ne dafa mel ne moom rek moo nekk Sénégal sama maintenant sama benn benn conseil ndax ay ay jëriñ si léegi ñun suñu devoir en tant que activiste en tant que jeunesse sénégalaise dañu war a xam ne Ndongo Diop bu ñu gën day gën ñu bàyyi bu yàggee ci kaso liggéeyam day yàqu femme salaire bu ko liggéey yaayam mi ngi toog jurul doomam pour mu nekk ci kaso bi ñaar daal di jël sànq ba léegi maanaam ñaan nañ ne fii ñi nga xam ne bari na ñoom day fukki nit ñu ànd ak ñun ñu dox pacifiquement ba ci buntu kaso bi ñu taxaw fa trente minutes naxarlu ko dem ba beneen jëm dugalaate beneen déclaration ñu ñëw def manifestation bu yàgg asalaamaaleykum Mbacke li mu ci wax leer na te yaakaar naa ne si wax yooyu moom dégg nañ bare bare ñu di ko wax ci média bi yëpp intervention bi nga xam ne si ñu taxaw yàlla ci yàlla tëddee def na ko li nga xam ne fi ñu doon président Sonko def boobu la ñu di ko wax dañ gis ni arrêté nañu lu 24 jeunes merci bi ñu arrêté ñuy bàyyi di bàyyi ba bés bi fii Diourbel daanaka 4 mois te ñoom ñëpp lañ jàppandoo te même motif bi lañ jàppandoo c'est-à-dire li tax ñu jàpp leen ñëpp lañ jàppandoo woon dama laaj ban yoon moo may ay nit ànd di def mbir nga am ñoo bàyyi am ñoo téye fan nga koy ban yoon moo ko may mooy c'est que c'est que li nga xam li nit ñi war a xam mooy Macky Sall ci boppam moo fas yéene wu ko parce que sëriñ bi wax na ñëpp wax nañ tey Macky Sall benn kilifa la am muy France te France ñu tànk yi ñu jógee arrangé wu mooy wan ko ginnaaw. li ñu idéologie bi ñu indi ak Pastef idéologie bi ñu indi ak président Sonko arrangé wu ma arrangé wu France kon lépp lu mën def mooy dénigré yàq der yi nga xamante ni ñoo taxaw gëm idéologie bi ànd ak président président Sonko donc kon rek li mu bëgg wan ñii ñi mooy yéen bu ngeen xeexee yéen a ci des ki ngeen xeexal jarul ko te dañuy seetal ñu koy wax ne ko c'est faux parce que bu ñu taxawee fii tey dañ fi taxaw président Sonko parce que bu ñu jëkk a aw man soo fi nekkee ñun suñu fi nekkee en tant que mutuelle pare ñu ngi fi nekkal tous les mouvements tous les activités maire bi mm. donc amul benn Sénégal ñun ñu ngi jóge ba Dakar amul benn Sénégal bu nekk ku fontaine du Sénégal bu tuuti.